et C'est un coup d'État. C'est un coup d'État à l'intérieur de l'AFP. Non, non, li mu def coup d'État là, mais Moustapha Niasse aussi le mérite moi te nëbbu ko xam nga man bi mu waxtaanee ak moom keroog def ni ma grand yow alors y a un AFP si woon nga def nga lépp mais jàpp woon affaire yi maanaam jàpp woon nit ñi xam nga lu ma ni man nak ça ne se passera pas comme ça. fa Niasse mënul ci mom dara ndax gàkku liggéey ni ci suuf amna ay cadre te am na ñu ni parti ñoo xam ne waxuñu de